Gora Ndoye ak Abdou Salam ñoo tëgg lamb ji maanaam Gora salaam production tey di samedi 13 juillet 2024 19h15 moo jot fii ci arène nationale maanaam sept heures tegal na fukki simili ak juróom yéen a ngi si Dakaractu la seen leader. Mbagnick ngeen jàkkaar lool Boy Niang numéro 2 bu Guédiawaye moo leen wan ginnaaw. arbitre baa ngi laaj siisam ndax pare nañu ah way day soufflé combat bi soufflé na combat bi 19 heures et quart maanaam juróom-ñaari waxtu tegal na fukki minutes ak juróom fii ci arène nationale tey di ab gaaw maanaam samedi fukki fan ak ci weerum sulet atum 2024 ñaari junneeg ñaar fukki at ak ñeent Boy Niang numéro 2 rakki Lirou Diane Lirou ngonguy li waaw mu ngonguy bagante Lirou ngongu xoolal Lirou Diane o oh, ndeysaan mbokko foor Cheikh Omar leen léegi Lirou Diane dara xewagul de Mbagnick Kaïré dem nga Maroc ñëw nga yaa gën a féete xale looy def Cheikh Omar dem na dem na ñëw na ñu xool muy def Lirou Diane rakk jaa nga ca géew ba Boy Niang numéro dori na ko xale ba jël ko nu ngay xeex jàppante nañ de da koo bëgg a xar da koy jaay doole da koy yëkkati da koy yëkkati tegal ko sees mu bañ dafa mën a bëree mag mu mën a bëree la eh Mbagnick Kaïré am nga client daa mën a bëree xale bi fu mu jëm ak moom magar Seck bañ na tëj na ko caabi lawbe magar Seck wala Boy Niang 2 ak ma Mbagnick Kaïré la ilaha illallah yaa xool li ma lay wax daa mën a bëree de dafa mën a bëree Mbagnick am nga client de tànk ba la na coppet dafa mën a bëree mu ngi jàpp de ne ngeen na ba pare jàpp Mbagnick mbaa fi nga nekk baax na Mbagnick Kaïré mbaa fi nga nekk baax na bañ ka ngay suruxal daa bëgg mu siggi ngir mu jàpp laay lay la la mbañik kay ram nga client de Boy Niang numéro 2 du nangoo daanu ndax ñaari rakam ñoo mujj a gañe mbañik kayre laay laay la la xamante ne da koy daan eh, sottante nañu jëlaam na de jëlaam na de jëlaam na Cheikh Omar ku daanu nañu jëlaam na daanu mbaa mbaa du li ma foog kottu yéeg mbaa du li ma foog am na lu am de am na lu xew de bi Omar arbitre ngay dute de boo ñaanee na ko daan naa ko Arbi lu tax mu àtte combat bi Arbi lu tax mu àtte combat bi arbitre lu tax combat bi Arbi lu tax mu combat bi kon xoolal liru jaan mu ngay kaas liiroo ngay kaas liiru daa jàpp ne rek ne jaan na ngay bagan te, eh, baagante baagante fu mu jëm teel leen ma ko jàppal leen ma liru ñu koy calmer ah way calmer len eh daa mel ni foofu am na lu fa xawoon de a ah, baax na a ah, way lu tax mu atte combat bi arbitre lu tax mu ko combat bi Mbagnick am na combat de Maguette Seck dafa mën a bëree da koy kottat yéeg ko kottu yéeg mu bañ kottu yéeg mu bañ koy laxasu arbitre war nga ma wax li tax nga atte combat bi Lamine Seck lu ko tax a atte combat bi kontaan na ko yéeg da tuur da tuur mu bañ laa ilaha illallah Maguette Seck andi na doole de Maguette Seck andi doole ci combat bi de ee eh, rakki liiru jaan jee mbañi kayre combat bi ci yow de ab client dëggantaan njaay nga am client dëggantaan njaay nga client nga am de mbaa ding ci génn ndengeen ba sax na ne Cheikh Omar di ko dóor gis nga Maguette sek mi xale bu ko moytuwul di nga xam xale buy dugg ci moom nang ko seet man Babacar maa la ko wax de ah neexut a de tànn ko gis nga Maguette Seck mii xale bu ko moytuwul di nga xam xale buy dugg ci moom nang ko seet man Babacar maa la ko wax de ah way neexut a bëreel de daan na ko jël bu rëy na ko jël bu rëy rëy daan na ko jël bu rëy daan na ko jël bu rëy Cheikh Omar dëpp da dëpp jéen a ngi koy jël si ndeysaan oh y'a problème c'est Kayre Kayre y'a problème mbañi Kayre jéen Kayre bébé jéen salari jéen bismillahi ma dee ci door maam góor gi Njaay sëtub yàgg ci